ay mag booy waxtaan ak ñoom laaj na nga janoog ñoom fekk leen fu ñu ne pour wax leen la nga xam ne moom liñ leen yéene naka la tëddee parce que réeroo amul ñàkk waxtaan moo am kenn nag amul dëgg ku dul suñu borom kenn amul dëgg ku dul suñu borom mais nit am nga sañ-sañ yéene nit ki mais bu ci yàlla àndul sax du àgg yéene boobu nag ak respect bi ñu am ci yéen moo tax ñu yegsi fii yàlla mi nga xam ne mooy liir ci xol ku ne ñun giiñ nañu suñu borom li nga xam ni yéene na leen ko te mooy lu baax yàlla na leen dal bu dee lu bon yàlla nañu dal nun loolu mënuñu paase foofu parce que yàlla moom kenn du ko nax teg bés koo gis rek bés daa layoo ak sa bàmmeel nit ki daa xeex alalu àdduna alal bi nga xam ne doo ko sax fekkee ndax yàlla mayul kenn dafa dénkaane rek nit dina xeex nguur waaye nguur bu dul jeex amul bu dul suñu borom bon nag nañu fabaat yëpp delloo ko suñu borom loolu rek moo am solo bu loolu paasee bi ñuy ñëw itam booy gisanteeg ay mag nga xam ne suñu ay waajur lañu la am solo mooy bi ñuy ñëw dañuy ànd ak conseil d'administration IPRES yépp dans toutes ses composantes ñu taxaw fi janook yow nit ku dul wax dëgg doo janoog nit mukk déedéet da ngay daw waxtaan mais comme li ñuy wax dafa dëggu ci ñun te ñuy yaakaar ni moom moo gën ci retraité yi moo tax ñu ñeme ñëw janoog ak yéen bi ñuy ñëw ñu ànd ak conseil d'administration bi il faut ma lim leen ndax ñooñu ñooy dogal amaana am na président amaana am na directeur général waaye ñooñu dañu exécuter la nga xam ne administrateur yi nga xam ne ñoo séq conseil d'administration bi ñoo ko dogal yéene bu ñu munti am te ñoom ànduñ ci du sotti ndaxte kër dafa am nu mu tëddee organe bi gën a am importance ci IPRES mooy le conseil d'administration ba nga xam ne ñu ko séq moo di travailleurs yi patronat ak état ñun lépp lu ñuy def rek dañ koy lal ci dëgg parce que dëgg rek mooy mujj ba ñuy jëkkee sànq directeur wax na ko bi ñuy jógee ci trimestre ak bimestre amaana sax boobu jamono kenn laaju ko woon suñu xalaatu bopp man maa proposé woon conseil d'administration bi te ba ma koy jëkk wax sax ñu bari seen xel dafa nekkoon ñaar loolu ci man la jóge wax dëgg itam mbakk dañuy fàttali jógewul woon sax ci retraité boobu tam parce que da ngeen jékki-jékki rek ngeen dégg mbir ma ci waxtaan sa yow ci man mii la jóge man maa ko proposé woon bi ma ko proposé mu am ñu am seen xel ñaar ma ñu leen nañu waxante dëgg Sénégal def fi lu baax da yomb boo amul xol lool da daa xaddi ndax nit ki dañ koy yéene lu baax mu foog ni yaa ngi koy jëmale ci mur bi mu ne waaye gëm yàlla rek moo fi am solo